travailleurs ñun moom dañoo am lu ñu bett ci travailleurs yi les ah travailleurs du COUD parce que biñu nee suba la conseil d'administration bi mhm. maanaam ñun ak ñoom toog nañ presque quatre quatre heures di waxtaan ñu waxtaan ànd ci ay kàddu ba juboo mhm. ci lenn ñu maanaam seeni jafe-jafe ñun dañ leen ciy jàppale ñun suñu bëgg-bëgg ñoom ñu jàppale ñu ci waaye bañ demee ci conseil d'administration bi dañ ñoo wor wan ñu directeur du COUD mooy seen patron fu mu jaar fa la ñuy jaar non mënuñu leen comprendre parce que ñooñu intersyndical la maanaam ils sont là pour defendre les intérêts des travailleurs même bu fekkee ni yow chef de département nga ak yooyu mais tey jii ni le syndicalisme maanaam li nga tax ni da nga dem laajte nit ñi ñu fal ma pour nga defendre leen seen intérêt moo war a jiitu yow sa intérêt à tes risques et périls mais ils, ils défendent pas les, vos intérêts, ils défendent leurs Le intérêts intérêt. à eux. Et Effectivement. Eux, leur patron, c'est le directeur ce que je dis. Non, non, non, non, non, non, attendez, attendez, attendez, ki ñu nag ñoom ci luñ juboo hmm. mooy maanaam intérêt travailleurs yi ak ñun li ñu bëgg ñu jàppale maanaam ñoom dañ ne lii mooy intérêt travailleur ñu ne ñun d' accord on se range derrière vos intérêts ñu ne ñu yéen looleen leen bëgg ñu ne lii lañ bëgg ñu ne ñu d' accord on se range nañ dem conseil d' bi ñu jàppalante ci loolu bu ñu paree aussi on envisageait même de faire des points de presse ensemble ñun ak ñoom mais dama ne ñoom ba ñu demee ci conseil d' administration baa ngi fépp ba ñu demee ci conseil d' administration bi ñoom dañoo wan ginnaaw travailleurs yi wan ginnaaw étudiants yi ah, dem rangé wu ci seen pro euh, ci seen directeur d' accord trahison cosaan la man su lu may wax rek moom à chaque fois que étudiants yi di wax dañoo a jàngi loolu c' est une bonne chose bon maanaam condition yi nga xamante ne nag bon si la ñuy jàngee bon je sais pas moo xam si c' est idoine ou pas Euh, bon euh, bërki dem mi ngeen doon def conférence de presse jàppoon nañu vingt trois étudiants ñooñu bàyyi nañ leen wala ñu ngi ci commissariat ba léegi. waaw vingt trois étudiants yi sax après yokkaatoon na parce que y a deux étudiants yoo xam ne Bambey jàppoon nañ leen fa am six étudiants yoo xam ne jàppoon nañ leen Thiès. Mm-hmm. mais ci biir euh, vingt trois yi njëkkoon annoncé maanaam siisu Thiès yi bàyyi nañ leen. Mm-hmm. booy ñi nga xam ne jàppoon nañ leen Kaolack tamit bàyyi nañ leen démb ci guddi suñu étudiants yi ñu jàppoon Dakar bàyyi nañ leen fi mu toll nii ñi jàppoon Kaolack. ak ñi ñuy jàpp Bambey ñooñu lañ lañ amagul lu ñu lu ñu leer ba léegi nii ba démb bi ñuy tëddi bàyyeeguñ leen woon. ñaata euh, boo xoolee bambe 2 la ñu annoncé moom moom lañ fa jàpp euh, boo yi nga xam ni ñoom ñoo nekk Diourbel 6 la ñu annoncé ni moom lañ fa jàpp. Hmm. bàyyeeguñ leen quoi. d'accord uh-huh. euh, te nous exigeons aussi ñooñu ñu libérer leen parce que defuñ lu dul demander leur droit.